ci cadre xeex dund bu metti bi état bu Sénégal nag jël mbir mi ak doole lu toll ci mille volontaires lu jëm ci wàllum consommation yu ñu recruter deux cent dix yi ci ñoom nag daal dinañ def ay formation ngir mën a def seen mission contrôler prix yi ci région bu Dakar. bu ñu demee ci terrain bi li ñu war a def mooy recenser boutique yi nga xamante ni am na lieu de commerce yi pour après ñu mën a def ay statistiques xam ku ci ne euh, gox bu ci nekk. ñaata bërëbu jaay euh, pour commerce moo am dañuy war a euh, assuré wu ni contrôle des prix yi ko boutiquier commerçant yi kenn jalgatiwu ko ngir rek ñu mën a respecté loo nit yi prix yi nga xamante ne ni moom la ñu bind ci marché bi ab plateforme la ñuy teg boobee nag nga xamante ni nii ñetti chaînes yëpp dinañ ci mën a dugg lu ci mel ni contrôleur bi commerçant bi ak consommateur bi. dafa nekk benn plateforme boo xam ni dañuy daal di boole bépp acteur boo xam ni yaa ngi ci marché bi. plateforme boobu nag ci luñ ko teg mooy ñu mën daal di contrôler prix yi nga xam ni ñoo nekk ci marché bi waaye tamit fu waay mën a nekk daal di mën a gis yooyu prix soit ci internet wala ci sa téléphone. système boobu nag dara taxu koo jug ngir daal di yeesalaat bu baax li nga xam ni moo di prix yi waaye tamit daal di régulariser marché bi ba nga xam ni fépp jëndkat mën a nekk dinañ xam ni mu toll mu nekk boutique yuy jaay détail wala demi grossiste yi wala sax grossiste yi en tout cas lépp dinañ ko digitaliser ba nga xam ne nii fu waay mën a ginnaaw nag région bu dakaar projet bi nag dañ koy gën a yaatal ci région bu Sénégal yëpp système bu jëm ci wàllum contrôler njëg yi nag dina jëlaale itamit jafe-jafe yi nga xamante ni ni mooy indi ñàkk déggoo ci diggante commerçant bi ak consommateur bi